أعداء الدلال من أهل الشك والفند su mar taxal te jihaaran fii safinatiha tan hoo Dakar bi isnil muminil abadi kenn demul moom rek a demoon. waaw waaw. te fi mu dem sëñ Hamidou daa garaaw. waaw ndax ki mu dem dafa am adduna. yor puissance bépp ci adduna jekku adduna. jekku ko yor ay kanu yori cravache yori tiital yori xëbal te ci terrain neutre la sëñ Touba xeexe jeeg ñoom. xeexewul ci Sénégal nekkoon gouverneur général. nekkoon gouverneur général yilif lépp ni ko sama baatay wéy. sëñ Touba ne ko mën demee tuuti baatu yàlla ak rasulullaay la procureur woowu ko daal procureur woowu ko gaa yi fii ku procureur woowu kookoo ko génne gouverneur ku am doole nga tax sëñ Moussa Ka ni gouverneur amul kuy dajeeg nasaraan waaw juróom yaari xat yu mat te yàquñu tawxiidam ku dul yow sëriñ Touba amoon nañ fi nag woo xam ni ku nu jàpp teg ca kaw di ñëw jinney doj ja daal lay fab ndegam doo sëriñ Touba amoon nañ fi nag woo xam ne janloog ñi tey mbañam boyal nañu nag woowee mu janloog Serigne Touba mhm. kon nag yow la yoneen ba ruujoon góor ñi booyal ko yaa ko bay mhm. mu lislaam defawnub tool nga jëwriñ ko waa Touba billaahi mu génn moom rek wéet cundum wéetal yàlla mosu koo bokkaale mhm. te fi mu ko defee nag fu jafe la ndax Serigne Touba moo bi may wéetal yàlla ku man yaa ngi koy bokkaale man bi may wéetal yàlla sama boroom waaw booba niixut a def booba maslaa am maa ngi ko wéetale foo xam ni ku dul man ñi muy woo ko faa wéetal bokkaale nga fay def waaw man ma wéetal ko foofa waxidullaha wa lastu usrik bihi shay'an xiina siwaaya yusrik nee na man sëñ Tuuba wéetal naa yàlla kennal ko moom yàlla ci bërëb boo xam ni kudul man Cheikh Mat Bamba da koy bokkaale ngir maslaha foofa la ko sëñ Tuuba wéetale xam nga laxat aqamta bi ndar xiinan tuziru biha daa abdalaali min ahli shakki wal fanadi góor mësu koo ñemee déedéet bàyyi sëñ Saliou rek dëgg la palais gouverneur nga yëkkati listam ba faw julli fa sëñ Bamba ko def trent 38 jours la séjour na Ndar géej gi sept la def yóbbuwul kenn li gën a garaaw te gën a jafeñ mooy ñi ko yóbbu soxlaa lu leen dara ndax moo bind wax ni katabtu fil bahri mhm. annii la amuddu yadi ila nasara abidil ma iwatiini boobu teg yàdd yi li muxnin karimin naafiin samadin laa li dërahimi taati min sulaytini waaw kay mu doyloo yàlla boroomam roy ci doxalinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wéttali ko alquraanul karim def ci lu ci góor mënut toog ko ba mu ñor nag mu ñibbi si waat ci réewam yéene ñëpp jàmm ndax bul fàtte sëñ xamidun mhm. lii kun bi kun sarmadan wajal masiriya za jawfal fara lil wara mislal maharini su delloo na nekk rëbbkat bu rëbbi woon rëbbal leen li gën a dagan te gën a rëy ci àll bi mu indil ko sama njaboot ñëpp di feetu te feet gi dootul dakk ijaal rujuu yi ilaa qawmi na wal tak fi naa yow ma jam il xalqi niiraana kon ñibbisi gi ci lañu ñu sawara waaye nga laaj lu am solo ndax da nga ni génn gi mhm. du moom moo coobarewu noonu de déedéet waaw yàllaa ko war a jaay mu war a jënd lam koy jaay nag loolu la demoon di jëli ci te defe naa bu ko Saliou Samba waxee ñu ni murit la mhm. su ma ko waxee ñu ni murit la mhm. waaye maam Bu Kunta Njaasaan seere na ko hmm? maam Bu Kunta bu Njaasaan seere na ko moo ko xoon sëñ ma Fëri Njaay sëriñ Basiiru Mbàkke bindal ko boppam sëñ Basiiru wéejuru sëñ Muntaxa mbind ma nii la wax dani xakkaa hmm. alayya ma Fëri Njaay ahadul muridiinal muhibbiin zawi diin innahu kaana yow mun مع أبي محمد الكنتي في قرية جاسان قال ولما قال بنا المجلس سألني من شيخك فقلت له شيخ مد بامبا قال الذي غريب قلت له نعم قال يزنون أن دولته أرادت نفيه وتغريبه كلا ما ذاك إلى سبب ظاهر أما الحقيقة فهي أن الله كشف للأولياء عن مقام عزيز عنده لا ينال إلا ببلاء من عزل بلواه falam yattara sa'dahu illa cheikh wa cheikh Ahmad Bamba fa waqaat alayhi limiana kama raayt ama annahu sayarji'u saliman ila Sénégal wa sa takunu l barakatu ala yadayhi liman tabi'ahu fala yumkinu li ahadin an nazu'u fihi maam bu nee na yow ma fëri Njaay kuy sa sëriñ mu ne ko Cheikh Mat ba mu ne ko ki ñu jàpp yóbbu ko ci géej gi mu ne waaw mu ne ko mbaa jàppoo nii nit ñiy xalaate jàpp ni tubaab bee ko jàpp rek déporté ko mhm. mu ne ko loolu la ñëpp jàpp de mu ne ko demewut noonu yàllaa woo njaboot yépp ñu daje xadra sunu borom xadra xadratul ilaahiya mm-hmm. fa la yàlla dajale góoru yàlla yépp ñu dajaloo mm-hmm. yàlla wane ak may goo xam bi mu ko tàllalee nee na ñépp a ko bëggoon kuy nitu yàlla sunu borom ni attention mayewu ma ko dama koy jaay nee na kenn amul njëg bi yàlla waxee li mu koy jaayee muy ay natt mhm. mu ni ñëpp a toogaat ni ko baax na kon attanuñu mhm. mu ni ko sa sëriñ Cheikh Ahmad Bamba rek laa gis ci mboolem góoru yàlla yi mhm. mu yàlla yan ma ko ma yenu ko dinaa dem dellu si ni ko nag bu dellu see bu leen sonn bu leen ñaan bu leen wird bu leen tuur deret jarul benn ñaan maa la ko wax sëñ Bamba dina dellu si mucc ñëwaat ak jàmm ci Sénégal waaye bu dellu see na nga seetlu li ma la wax barke dina toxoo fépp dem dëkkeeg sëñ Tuuba maa la ko wax lolu sëñ touba firndeel lako ndax moo ni barakati barakatul laa tansarim tawsiati kamadadi latan tanxarim moo barakatul IslamI, nahwi aqbalat wa man qalawni fil baraya khujilat sëñ touba neena na barke l'islam bepp dekk nak man sëñ touba sëñ touba moo ni mi aji tab ji may ma xam dutul jeex te kudul man sëñ touba yalla sak la la nga yor dina jeex yawit di nga jeex ba mu dess man dañ seet wax jooju gaa yi mhm. moo ne yajuudu lil jawaadu maa laa yan fadu wa kullu maxluuqin siwaaya yan fadu li ko may nag mooy jihaadiyan qadaa mhm. wa bay rabiha wali siwaaya kullu kat bi nabaxa nee na sama jihaad jeex na dama engagé wu ñu jaay ma ma jënd mhm. dootuma am benn problème yàlla fay la may def léegi léegi nag ku dul man xaj yi dinañ la mbaw waaw waaye man sama mbir ci kanam la jëm xam nga li Radalia raddali alladhi qad fata minal xuyuri misali fata ci xasida eh, isa dia misaali fata waye sax lu gëna a lool la lay wax señ xam ne xam nga Saint Louis waw ndar ndar xam nga moo nekkoon capitalu senegal waw colon yi ñoo ñu yilif mhm. ba 60 lañu door indépendance mhm. kon gouvernement France bipp jité won suñu rew mhm. waw ndar di capitalu Senegal. ndar xam nga ñaar at la saint création d'ar. Mhm. créé 1659 lañ défar waaw Touba Seigne Touba fekk ko muy kessé mu tok fa xaar mhm. ko 1888. 1659 mhm. ba 1888 229 ans la la Ndar Touba ñaar ñaar 229 ans la ko ñu dem Touba deuxième capitale deuxième ville économique. waaw jooju màggaay ku tudd yàlla da koo man waa ndar sax tuxu nañ dem Touba hmm. ñoom day mu ngoog quartier ndar yëpp tudd nañ ko Touba seetlu loolu nga jàngat ko dem ñoom ci koo xam ne boo demee ba 2007 gis doomam ñun la kii doomam la muy Serigne Saliou ba 2007 fi jeexut gis nga sëñ Touba dafay kàttan ju ànd ak logique yaa wax dëgg dafay dëgg gu ànd ak logique mm-hmm. nga xam ni léppam dafa logique mm-hmm. boo ko waxee ab jàngkat buy jëfandikoo xelam dafa war a nangu sans contestation ngay xam ni kii yàllaa ko far li tax nag yàlla far ko mooy fa mu wéetale yàlla kenn mësu ko faa wéetal ni mu daan jëfandikoo boroomam kenn mës ta toppe noonu yàlla wax nga ko léegi ci boroomam meloy bàmbaa ngii waa ju xamul na déglu te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam day jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam day may ku ko bañ di woo ko ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam mm-hmm. day faj aajo ki xam lay mbóot di génn gi ci tuskare jox boroomam day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mm-hmm. mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boromam mm-hmm. day fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal ko sol ko xam-xam ciy boromam day fekk murit bu dof bu tilim ferul baax mu fóot mu set mu tofal mbooloom boromam melay kawam ak meluy biiram dëppoo nañu du déglu lu bon du déglu ku dul boromam du mooy ngir tiit du pookari mbég lu mu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku dul borom du jàq du rët du jaaxle du fàtte yoneen te mës ta tawat lu xew ci kutul boromam mhm. du daw noon du yox yoxi ngir pexim nit du sukkandikoo ci mbax mu kutul boromam lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak ngëm du yokki du daw day mbër mu far ak boromam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba tax mu war faratay boromam du dégg nodd mbaa kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam mhm. du tab ji ba tiib du wuute musul di maamum du gàpparu bis du wéeru julil boromam du yeexal wenn waxtu te Mustafay faat la koy wax raw na montarte mooy boromam maa la ko wax du ñàkk ba tax mu booti ak kuréel yi koy laaj du denc alal lu may téeree boromam du tax siddi ci ay lal guddi di nelaw ciy kii du lekk ba regg day mus ngir boromam mhm. li gën a garaaw dëddu dërëm yi waaw moo tax benn mauritanien nee na wax bu ma neex la sëñ xam mhm. dañu sëñ Tuubaa wa man yusaawika wal asiyaaqa martabatan fa lay sa yadri min ay na tookilul katifu <laughs> yow ku lay tëkkaleeg benn sëriñ dafa màndi réer jaxasoo xamut lu xew kenn war la fi du dexalat kenn wa man yusaawika wal asiyaaqa martabatan mhm. fa lay sa yadri min ay na tookilul katifu lu tax hostal xisaal allati tasmu rijaalu biha lakinnahu qad qafaaka al ilmu wa sharafu lu ñuy tuddee dañoo complexé loolu nu dal doon mhm. waaye looy tuddee nitu yàlla ak réew mu mu am mhm. Serigne Touba defar na ko mel noonu dama wax Serigne na ko defar na ko mel ni ka ngay wax waaw koo yenu andi rek koo yenu andi lu maayam rëy rëy bul tudd Serigne Touba defar na ku mel noonu laa ilaaha illallaah ah dara jommalunu waaw ku mel noonu nga xam ne ñu ko topp ku ci nekk ma ngaa taxawal tariqa waaw waaw te ñooñu ñëpp di sukk di raam maa la ko wax kon sëriñ bi nanu nangu li nu li nu yàlla cërale dëgg la sëriñ Fallou dañu woon ki nu yor kenn yoru ko ñun rek a ko am wallaay wallaay liggéey bi def cee daj lu kenn dajul góor daju ko mhm. xaw naa dee ci liggéey bi mhm, dëgg la buñ ko yombal de dëgg la liggéey bii dëgg la wax na ko ne dem géej jàpp ni daa yomb essayal dëgg la dëgg la man chaque fii zalika ne fal yu jarri bi ba man yu jarri baa ab bi taxaru bi taxaru bi képp ku ko essayé da ngay gaaw léegi dëpp dem sañ bopp dëgg la dem sa tumuranke parce que li mu def kenn musu koo def waaye bi mu ñëwee ñëpp la war du sant la ko yàlla waxul boppam nag yàlla lay sant dëgg la dëgg la sëñ bi mhm. la nu joxoñ mhm. ni sant leen ma sama borom mhm. wax naa la léegi ni la màggal gi sëriñ fàlloo ko woote biir Tuubaa woote bi tam dafa am lu ci làqutu biir Touba. Mhm. Serigne Thierno Diaw may seetaan xëy na. Mhm. mooy xalifa sëñ Modou Diaw Paxam moo ma ko wax. Mhm. te xanaa duma ma waxal. sëñ Modou jaw sëñ Thierno jaw lu mu waxul te mu jàkkaarloog télé bi. ah. sultaanu Arifin waaw moo ma ko wax. sultaanu Arifin waaw ah, man mii sama sama baay la ndax dafa yor sama tante ba am ci njaboot. yoo xam sama rakk lañu. mu ne mu ngi may seetaan. sëñ Thierno Diaw moo ni ma bi fi sëñ fàllu ñëwee fii la ma fekk. booba dëgër naa xam ne mu nuyu sama baay sañ Modou Diaw bay ñibbi sañ sëñ Modou Diaw dàq ko ba ci oto bi daal ni sëñ Fallou yow de yaa ma fi bàyyi ba tey sëñ Fallou ni ko ci nan mhm. mu ne ko bu may dund ba tey li ma waxul yóbbante sëñ Touba bi moo tax ndax xam naa ne yàlla sunu borom mii ray ko ko neex du ma jël fekk waxuma yóbbante sañ Touba ma bëggoon nag nga ñëw ma wax la yóbbante bi tawaaj dem ci barsàq ni mag ñëpp ndax mag laa te looloo ma fi bàyyi woon fekk waxuma ne ko dama dem barsàq ñooñu yegg nañ sëñ fàllu ne ko lan yóbbante lan la. feuille de mu ne ko keroog bi muy joxee ndigalu màggal gi man la yónni maa ko woowali sëñ Balla Fally Dieng. man la yónni. daan daf maa déeyoon ni ma sëñ Fallou di nga ko fekke saa bu demee ba donn ma toog ci sama xilaafa gi. Mhm. nee ko màggal gi ma woote woon ku ne di ko defee sa kër na ko defee biir Touba su ko fa defee dinaa summeeku ci moom di moom muy man tey sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko waaw kon ma demee waajal koy ndax moom rek laa bëgg doon borom baraag bi laa bëgg doon sëñ Xaadim ko bàyyi mu sedd 47 ga la ko woote wallaay mooy at mi fi Vincent Auriol mi nekkoon président France 1947 ba 54 ñëw. wallaay wallaay wallaay après ko René Coty daal di wuutu. wallaay wallaay moo fi ñëw. Mhm. at moomu ci la ko sëñ Fallou woote na ma ñëpp fekk fii mu gën a neex. maa la ko wax te màggal yi dimension bi mu am. Mhm. waxuma la bu juróon ay baatin du mhm. wilaaya. économiquement. li muy rapporter Sénégal amul menn réew mu am événement bi la koy rapporter. dëgg la dëgg la 50 cinquantaine de milliards. dëgg la dëgg la dëgg la wallaay wallaay wallaay wallaay Seigne Khadim foofu laa lay dugalee ndax bëggoon naa jox soxna jaar